te dinañ ci mun a xaar ay surprise waaw album bi Pape Thiopet ban album la pare pour gis nañ tamit nga def duo ak waykat bi di Adam seen waaw mhm. waa xam nga yooyu ay œuvre la yoo xam ne dama ko liggéey liggéeyoon mhm. euh, seeni borom fay ma seen xaalis ma yoroon ko war leen ko jox même bu may bàyyi ñoom loolu concerné wu leen mhm. parce que avant amaa bàyyi dama jël seen xaalis ñu am loo xam ne moom lañ waxante ba seq liggéey kon pour nga continuer ko. contrat bi contrat moo leen lié woon. waaw contrat boobu moo ñu lié am na ci ñoo xam ne mun nañ ne ah léegi nag fi ñu fi comme affaire boobu am na. Mm. njaay booy bàyyi yow la concerné. Mm. boo bàyyee yóbbaale suñu œuvre ak li ñu signé woon am nañ droit yóbbu la police. moo tax ñooñu da ngay da ngay respecté seen i engagement. Mm-hmm. al sama sama dama yoroon benn studio kër ga studio boobu am na ay booy yu bëri yoo xam ne maa ngi ñoom seeni i foofu yu ma liggéeyoon. Hmm? ñooñu dama soxla ku mel ni Lamine seen day bone am na benn affaire bu ma ko liggéeyal sama studio foofu moom sama frère la mm-hmm. waaw ak Diallo Waar benn booy bu nekkoon Kaolack mm. hmm? ak ay yenn artistes yoo xam ne bëgguñu ma tudd seen tur mm-hmm. ñooñu war naa war naa yeggali seen yëf quoi mm. ñooñu dama bëgg a yeggali seen liggéey. Pape est-ce que euh, question directe bu direct laa lay laaj nii nag est-ce que art bi dafa am mysticisme parce que dañuy faral di dégg ñu ne artiste diw dañ ko laal yow sax bokk nga si ñu ñu waxal loolu euh, ñu ne loolu bokk na ci loo ralentir bu baax a baax sa carrière defante bi ci art bi loolu art ci art bi milieu milieu musical bi dëgg la. dëgg la loolu moom dëgg la moom. Hmm. loolu moom man moom maa koy dëggal moom tey man ragalu ma ko. Hmm. koy maa aar ak ak kii ñoo yem nu mu tuddee làmb ku ci nekk da ngay bëgg jël premier ku ci nekk roi des arènes bi moom ngay bëgg a fël pour nekk roi des arènes am na ñoo xam ne tey fi mu toll nii mun nga siiw yittewoo siiw bi fi nga nekk noonu sa place ñoom moom la ñuy ciblé moom la bëgg parce que yaay nekk number one bi te ñoom lu seen rêve ak seen tëdd ak seen guddi ak lépp lañu fekk. ñoom neewuñ leen yow yaay fi mu toll ki fi nekkoon yaa ko jëlee wala yaay nomba wan bi ñoom duñ duñ mën a nekk. tey fi mu toll nii bëri na ci ñoo xam ne boo ubbi woon seen xol tey fi mu toll nii roi di la ñuy la ñuy rêvé instant buñ ko doonul rek duñ nelaw. am na ñoo xam ne dañuy rêvé maanaam toog fa Pape Coppe doon taxaw di jouer ñu ko fay gis ñoom foofu lañ bëgg a taxaw. léegi ñooñu am na ci ñoo xam ne dañu gëm yàlla ba nga xam ne dañ naan ah bu ma liggéeyee ba yegg fii day bu ma liggéeyee. yàlla mën na ma yeggale fii. mais lu tax ñu atteindre la mystiquement. xanaa daawoo daawoo jukki sa bopp nag. waaw dañuy waxtaan ci doomu Kaolack man nag yàlla daf ma daf ma def daf ma def koo xam ne dafa am yu bëri yoo xam ne ci sama carrière musicale dama ko dama ko dama ko suufee suufeeloon mais tamit yàlla wax na ak man mais man maa déggut wala bi ma déggee tamit topp ma na yàlla ñun ñëpp suñ xam-xam lu mu gàtt gàtt xamal ñu ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàppoon nañ ko ci njabar mm. ba yàlla wàccee falaxi ak naasi loolu ñun ñëpp jàng nañ ko mais nit dafa dëgër bopp mm. te sama papa daan na wax ne ma neenu neen du wërum réew dañ ma daan gis man toll naa fi Dakar benn jamono boo xam ne aar bi dama ko téye nii sama loxo du taasu du way du lépp laa boole def ko nii parco père ngay dégg mm. te boobu yàlla xam ne ne du ma xëy laal saafara du ma takk dara sama ndigg daayira la boo xam ne yàlla moo ko wàcce woon ci man affaire u defar sama bopp xaw ma ko sama yaay sax da koy wax mu ne kooku jaru sax ngay son ci man boo ko yóbbu bu lu mu takk du ko takk xamul lool moom day sama yaay da daan wax ba bu ko nit ñi wax mu ne leen nii nag may tooñ ndax bañu maa kaa lu mu takk waaye moom boo ko ko takk. bu démb doon di nga foog sa bopp ba. waaw man dama loolu lépp nag sama xol moo tax mënuma ci woon dugg parce que man li may jàpp rek mooy yéenewuma kenn lu bon. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. yéenewuma kenn lu bon. yéenewuma kenn lu ñaaw ne ñëpp am jàmm. léegi nag loolu ma doon foog te place bi ma nekkoon noonu bi ma demee tuuti reculer laay laay doog a xam ne ndekete fi ma taxawoon ñi fa bëggoon taxaw bëri na. barke Serigne Saliou. mais instant boobu gisuma ko woon parce que lépp li daan ñëw yëpp. ay jàmm lay doon ay ree ay kii mais après ngay soog a comprendre vraiment yow fi nga fi nga nekkoon fa nga toogoon. guddi ngi toll nii ba yaa ngi waajal sa bopp bu baax. waaw maa ngi maa ngi li ma mën a wax mooy. Mm. maa ngi ñaanlu. Mm. di sàkku tamit euh, ci gaa yu baax yi nga xam ne suñu borom da leen may à travers le monde am na ñoo xam ne ñu ngi dégg. dëgg la. ndax métier bi ñun biñ ci doon dugg man mun naa wax ne aar bi ma ciy dugg dama doon dugg pour defar. dama gis ne benn secteur la woon boo xam ne mu ngi yàqu ci àdduna ay xale dafa jaaree di bon mm-hmm. man a xaaral ma ñëw jéem a raxas kémt laay kàttan ci sama ngëm mm-hmm. ma ñëw ne fekk naa xale yi dañ doon fecc di kili bi di sol ay mini te ñun suñu diine ak ni mu fi mu demee nii euh, mag ñi bëgg nañ même booy sol dara nga teg mu xaw a yéew léegi dinaa fexe ba clip bi may def xale yi ay jiin la ñuy sol mu mu wàcc mm-hmm. ndax boobu dañu demoon bu commencé xale yi commencé bëgg a exagérer mm. te loolu doo ko mën a teel a dindi noonu mais ñu ngi commencé roy tubaab yi bu mm. baax sax danga nga doon gis clip boo xam ne daanaka xale yi mooy loolu mm. ma ñëw indi jiin mujj gi ma indi yeneen laxasaay indi ci ay ba pare ñëw ci taxi yi fekk naa fi ubbil Mbarka Ndiaye ah léegi ma ne ah ubbil Mbarka Ndiaye de mag ñee ko waxoon waaye ubbil Mbarka Ndiaye waree su ko wax ci kanamu kilifa kon nañu xool nañ lañ demee changé texte yi hmm. ventilateur climatiseur yooyu yëpp fii lañ ko fekkoon hmm? boo ma dee raay xam nga wax jooju hmm. ventilateur climatiseur boo ma dee raay raay ma ci naq li ci des dañ ma koo tere xam nga loolu nga taxaw ci ay kii maa ngi jublu maa ngi jéggulu sax ci li ma koy wax nii ci télé mais damay am lu may jàngale ndax léegi moom léegi oustaz nga damay non non non du oustaz. ban ah. sax même bi ma nekk ci euh, euh, oustaz. Hmm. yow sax oustaz nga. Hmm. képp ku taxaw di jàngale rek. Hmm. képp ku taxaw ci kaw seen sax di woy jàppal ne yow oustaz nga. yaa am am li ñu cëralee ci waxtu daanaka li ci des bëritul ci tënk sa gis-gis par rapport ak musique bi euh, tey jëlee ak nga daanale ak sa sa say say say projet fu ñu la war a mën a xaar. waaw fi ñu ma war a. musique bi xale ñu ngi ko teg ci ñu ngi ko teg ci axe jamono jële. ñu ngi ko. est-ce que ñu ngi ko teg ci axe. ñu ngi ko teg ci axe. ah man de axe bi ma xam léegi damaa bokkul ak ñoom axe xam si ñoom fi mu toll nii am na ci ñoo xam ne ndax njaay teg na ko ci axe ñu ne la njaay tegu ko ci hmm. man tamit am na ci ñoo xam ne moo leen wan ñi ñi ñi ndax seen yëf teg nañ ko ci axe. dama hmm. naa leen teguñu ko ci axe. Hmm. parce que dafay nekk ñaari ñaari gis-gis yu wuute. man am na lu ma xool foofu ba bëggatuma ko. Ah? te am na ci ñoo xam ne li ma nekk ñoom bëgguñu ci nekk. kon ku ci nekk sa axe ngay gëm. comprendre na man dama gëm sa axe bi ma nekk. boo gisee ku mel ni Wally Seck jamono ji ak évolution am ci aar ci wàllub aar. waaw non loolu da li may wax rek mooy aar moo bindee noonu aar aar chaque jour day génne day génne benn kii nu mu tuddati day génne benn luñ koy waxatee am na nu ko tubaab di waxatee. benn ah? phénomène mhm. léegi phénomène boobu mën na yàgg. Mhm. tey boo xoolee ku mel ni Papa ñëw na fi def marqué empreinte def fi loo xam ne nit ñi defoon na ne maanaam dootu fi jóg. dëgg la ni Aliou Mbaye Nder. Mm. jamonoom def na fi bagage yoo xam ne nga ne ne mii dootu wàcc mukk. Fallou Dieng Fallou Dieng mu ma nekkoon. Mm-hmm. Youssou Ndour. Mm-hmm. Alaaji Faye. Mm-hmm. léegi nag li ci am solo mooy moom fi mu nekk naka la mën a def pour maanaam gérer ko ah, ba fi mu ci bëgg a dem mu dem fa ba pare en plus muy sóoraale lu comme le papaam doon sooraale mm. du ci yàqu te du ci yàqe. xam nga affaire bi affaire bi mm. yëpp foofu la nekk. Mm-hmm. def dafa dafa nekk dafa nekk ci affaire bi siiw. Mm-hmm. wala nga nekk au euh, milieu dafa métti. Mm. parce que li ngay xëcc li topp sa ginnaaw dafay bëri. loolu nag di topp sa ginnaaw il faut nga bo bu bàyyi sa bopp ci xel sa sa xel ci sa bopp xam ne bañ bañ a bàyyi sa bopp ci succès bi kese. succès bi nga def ci attention. ah xaalis bi nga def ci attention parce que ñaar yooyu dafa nekk loo xam ne mun na aveugler nit ba nga xam ne maanaam bu gisee dëgg sax du ci nangu te jaar mm, xaalis dafa neex mm-hmm. succès dafa neex mm-hmm. di mun na bewloo nit ba nga xam ne la waroon sax ci suñ diggante ak suñu borom da nga koy sànni fële mm-hmm. bëri na koo xam ne da daan jubal di def lu baax di bëgg yàlla di jé di def lu kii mais keroog ba ma amee succès la bàyyi yooyu yëpp mais musicalement parlant Wally gis nga ni mu ngi ci yoon waaw mu ngi progressé bu baax a baax a baax. Mm. mu ngi progressé bu baax a baax loolu man bokk naa ci njëkk ñoo xam ne ñoo ko njëkk a wax ci côté musical man. seen duo ñaar suñ duo mm. dama ñëw. parce que boobu instant boo fekk na sonn na. Mm. parce que amul euh, ñii ngi ne wax naan li muy def nii ba woy nangam ak nangam euh, baaxul ak nangam ak nangam. bi may yéeg di def duo boobu li ma ko li ma ci gënee na intéressé mooy pour wan koo nekk fi axe bi nga nekk noonu. baax na bul bàyyi foofu. Mm. moo dama ñëw ne ko foofu ngay woy noonu foofu la. Mm. fa nga sañse noonu foofu la boobu ci jamonoy sañse leneen nag man la bu amee leneen lu yokk ci ay sañseem ak ay yeneen yoo xam ne moom lañ koy kii yooyu yëpp tamit da ci da ci bàyyi xel parce que sañse mun nga dem dem dem dem dem dem dem ba euh, am na ci ñoo xam ne dinañ la conseiller loo xam ne ci sañse maanaam du bokk ak yow fi nga nekk. sañsekat sañsekat dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg boo bëggee am na foo bëgg a toll ci sañse dëgg dëgg dëgg boo moytul da ngay génn diine parce que il faut nga solu comme di nga dem ba instant boo xam ne nga solu comme. aar bi mooy imposé boppam. aar bi moo lay voilà gis nga aar. Mm-hmm. aar dafa doy waar. Mm-hmm. boo ci nekkee aar moo lay impo da dem ba instant boo xam ne moo lay imposé na ne yow lii ngay solo. Mm-hmm. Michael Jackson dafa aar dafa dem ba imposer ko ne ko sa bakkan bi nii la war a mel. Mm. sa teint bi nii la war a mel. Mm. sa karaw gi nii nga ko war a soppi. léegi nag yaa ngi fi mu toll yaa ngi soppi loo xam ne waroo ko soppi ci sa jëmm ji. dëgg la am na solo. te te boo ko defut. Mm-hmm. boo ko defut fay. Mm-hmm. moom moom la ñu wax ni ku woddoo làmmiñ boo noppee rafle. boo noppee rafle yow.